dama koy bamtu sax naan koor gu ne daanaka day am surprise si làmb amati na surprise bii nag muy loo xam ne lii yàgg nañ ko rumbanaat xam nga man def bokk ci commentaire yi nga xam ne daanaa ko def Sa Thiès rëk-rëk dama leen di dugal ci coow li d'abord mooy Sa Thiès rëk-rëk euh, gis nga keroog euh, combat bi rëk ni mu sampee ci kanamu bombardier euh, nga xam ne foofu dama ne ah rëk-rëk mi ngi bëgg a survoler Euh, euh, Sa Thiès mi ngi su su bëgg a surveiller Reug Reug mais malheureusement que Bombardier daanu kon ça veut dire que combat boobu day combat boo xam ne bu idéal la muy ñaari xale parce que booy xool Reug Reug dafa dugg ci biir ñoom Sa dafa dugg seen biir te ñoom Sa Thiès dëgmal mag ñi loolu mooy enjeu combat bi muy ñaari xale nag yoo xam ne boo xoolee seen i ménager xam ne ah xam nga ñaare toujours combat yi boo xoolee ci ménage yi ngay xam enjeu bi Bachirou Babou ak Paalo jo fu ñu daje tey tey tey gëj na ñoo daje ñoom ñaar gëj ñoo daje xam nga combat ci ménage yi lay commencé ñoom ñaar gëj ñoo daje te dañoo namante woon te gis nga tey ñu daje ci diggante Reug Reug Sa Thiès combat bi commencé na ci ñaari ménage yi d'abord parce que Bachirou Babou ak <laughs> Paala ku ne xam nañ ne ñooy làmb ndax ñoom ñaar fala la combat bi commencé. laata nag nga xam ne dañuy ñëw ci kaddu yi ku ci ne jël ci kaddu damay bàyyi ki nga xam ne tey moo leen fi dajale ci Gaston Production d'abord muy Makan mu ñëw nag ci kaddu yi nga xam ne moom lay njëkk a rotal ginnaaw bi nga xam ne combat bi ñu ngi ko signé fii ci kër gi ci Maris ah, ci diggante Reug Reug ak Sa Thiès amateur yëpp bëggoon ko nag Sénégal yëpp bëggoon ko nag muy combat boo xam ne bii ah alhamdulilahi rabil alamin bi ñu ko amee ndax commentaire yi yàgg naa am kon ci teewaayu nag ki nga xam ne mooy Abdoulaat Ndiaye moom it dina sànni kàddu ci kanam waaye dina ñëw ci ñaari ménager yi waaye laata loolu ah Makan ah tey de indiwaat nga ñu ci beneen coow loo xam ne xam naa ne moom la ñuy wooree ndax werante yëpp ci koor gi mooy diggante Reug Reug ak Sa Thiès Makan asalaamaaleykum. salaam. maa ngi leen di nuyu per ngañ maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm di rafetlu sa liggéey yow moom macha allah rek yal la fi yàlla bàyyi ba ci kanam kanam nga fekke lépp ndax euh, yàgg mooy gunge ci liggéey bi yàlla na ma ci liggéey incha allah di nuyu suñu per Gaston euh, di nuyu Abdoulahad di nuyu ñaari managers yi di nuyu presse bi fi teew di nuyu amateurs yi. lii nag moom suukaru koor la suukaru koor la donc xam naa ni amateurs yi lii lañ doon xaar euh, yàlla dogal na ko tey donc euh, ñu ciy remercier ñaari camp yëpp euh, combat bi alhamdulilah rabil aalamiina taxaw na donc ñaari manager yi ñu ngi fi signé nañ contra yi léegi nag damay jox rek Abdou Lahad mu sànni ci tuuti quelques baat comme moom. ci la bokk ci Gaston Production la bokk euh, may rafetlu liggéeyam ndax moom ma ci gunge bu baax a baax a baax a baax a baax lépp lu su naree ñaaw rek moom dana ma woo xelal ma ne ma nii la wala nee la donc ma ko ciy remercier au passage euh, di remercier Père Gaston nga xam ni moom c'est soutien de taille la donc euh, moom su fi nekk loon xëy na nii lii du am donc ñu ko fi euh, sant di ko ci gërëm ba pare na ko amateur yi ñaanal bu baax wér-gu-yaram kuddu fan nga xam ni que euh, am na njëriñ ci réew mi euh, loolu dañ koy sant encore une fois di ko ci gërëm di ko gën a ñaanal parce que yeneen surprise incha allah dina ñëw yamul fii amateur yi moom lu ñu bëgg rek Gaston Production def ciy dox dox nañ ci conclure nañ donc dañuy santaat yàlla santaate yàlla Abdou Lahad maa ngi lay bàyyi nga sant ci quelques cadres. merci. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp Alaaji Ngeen ñi ngi lay nuyu di rafetlu kàddu yi ak teewaay bi di am mbégte trop parce que combat bu ci ne ak dayoom gis nga léegi président Bassirou gis Pala Diop gis suma frère Makan. waaye loolu lépp rafet na sénégalais yi ko bëggoon waaye sénégalais yi mën nañoo bëgg dara ñu ànd ci structure di ko liggéey te bu Gaston ne déet duñ ci mën a xëccoo moom waaye li am sens mooy ànd ak leader di ànd ak moom mu bàyyi la xel te nangu ñu ànd ak ñun jox ñu li ñu moom jàppale nañ ba fu jàpp yam te xam nga tey ànd ak leader bu mel ni Gaston di gestu naan ko dama sonn wala dama tàyyi day daal di compliqué combat bi yàlla na def sunu borom defal ñu ci xéewal coono yañ daan daj ci ay làmb yàlla di ci indi xéwal yàlla defal ko ko ci ndax yaakaar dafa fort te cër dafa am solo bu Gaston jëlee cër bi comme ni ko Makan waxee di suma frère ñu ànd di liggéey muy ko neex àndal wax na ci laat waaye li mu wax moo ne ci moom waxam bariwul néew na mais jëfam yaatu na te lu rafet lay bëgg di dégg boo ko xoolee Gaston son papa doy na exemple ci expérience waaye bëgg lu yaatal ak yokk combat bi askan wi ko bëgg wax ñu ko ñu wax ko ki nu àndal muy leader bi mu ànd jafandu ci buum gi ba mu sotti waaye ci ndimbalu ak yombalu ñaari camp ménager yi ñi ngi gërëm Pala Diop ci côté rëg-rëg ak Leyti ak Mout Sène pourquoi ñu gërëm leen nit ki bu jëlee boppam am ñu mu ko jox ñooñu ñëw ni père Gaston yaay sunu père jox ko cër ah bëgg buur buur bëgg la de ko dàq moral combat bi taxaw baabu aussi gis nga ko Balla Gaye Abdou Aziz Ndiaye la fa daje lépp jël Gaston ni ko moom la kon ñun la ñu bëggoon Gaston gàcce ngalaama defal nañu ko te askan wi ñu ko réclamé ñu ñëw ànd ci ak moom rëg-rëg digganteem ak nga xam ne mooy Sa Thiès combat la boo xam ni ku ne xam ne ñaari mbër yi ngañ mën nga koo toj yaakaar naa amateurs yi tey seen xol dana sedd ndax ñaar ñu bëggante la bokk génération di ay xale donc làmb fa la mën a yem Gaston nag bu mu ñëwee ak léegi ci retour am defagul deux ans et quelques mais retour gagnant laa ko tuddee la ma waxoon fii daaw naa ko xaatan te yàlla may nañu fekke ba mën koo wax heure bi daaw premier jour koor ci lañ taxawaloon Boy Niang 2 ak Balla Gaye numéro 2 ak la ca tegu Balla Gaye am 4 avance pourtant Balla Gaye rek moo fës ci génn ci 4 avance Eumeu Sène am na 3 avance bëri na 2 combats dese ko Balla Gaye et pourtant Aline Seye numéro 2 jaar na bëri na 2 combats amul xaaj ak seen ci projet bi mu am dafa am projet pour jàppale làmb te et puis avant muy ñëw bu leen fàtte ni mbër amoon nañu jafe-jafe pour bëri dajale woon nañu TFM donc bi mu ñëwee jëlee na fi lépp jëlaat ay doomam. ñii nga doon tëgg seen ay papa tey nga ñëw ba di leen tëgg ñi ay doomam ñii di ay sëtam mu ànd ak ñoom li mu am pour partager ko moom sensu làmb ji la nag ñu ngi koy félicité bu ñu koy wax nag dana xaw a doy waar li may wax kàddu làmb ji yëpp la du sama kàddu man dong parce que képp ku bëgg làmb bëgg mu dox nit di ca def loo ca mënul kon amel na la njukkal kenn ku ci ne la nga attan da nga ko yor dugge ko marché te du tere bu yekk jotee nga yekk waaye nag li ñu gën a bëgg te amateur yi bëgg ko yàlla may na ko am na possibilité moom la ko yàlla jagleel ñu fier ci nag ak ànd ak moom ànd ak nit ak fierté waaye di gërëm diaspora monde entier ci jàppale ak li Gaston di def ñu gis ci seen bopp ak côté pay-per-view bi ak la ñu ciy liggéey ci par compréhension kii xaalis bu bari moo taxawal combat bii du ay millions yomb ma mënu ko dëgg rek dagg ko ci ay billets na nit ñi comprendre ni bëggal nañ leen mais dañ toll jamono boo xam ne ñoo di ñu comprendre ba sponsor ñëwee jënd ko jafe-jafe du ca am ñëpp mën nañoo ànd bokk boddewuñu kenn bàyyiwuñu kenn parce que santuñu ko xulooluñu kenn ngir moom ndax santuñu ko na mën a defal boppam yéen nañ ñëpp jàmm ci barke weeru koor ñu ngi balu ñëpp àq waaye ni ko Makan waxee suma frère suukar sàngoog waaye peut-être am na ay surprise ci kanam ci Gaston bàyyiwul dara ci kanam tuuti yàlla mën na def leneen ñëw waaye daal gàcce nga laa ma Gaston merci jërë ngeen jëf ñu ngi tuub di jégalu jërëjëf. baax na jërëjëf euh, Makan euh, mi nga xam ne bi nga jëlee kàddu gis nga révélé nga ko muy sukkaru koor Abdoulaat ñëw tëj ko ci révélation yi nga xam ne am na ak ki nga xam ne mooy gasto ndax gasto damay wax ne retour am 11 après li mu jiwoon la fi fekkaat léegi nag jébbi na jébbi bi mooy xale yi nga xam ne nag fekkuñu woon chance am ña ngi cay duggaat ku mel ni Sa ku mel ni Reug Reug ku mel ni Alioune Seye numéro 2 xale yooyu yëpp lim nga leen yaa leen lim te làmb noonu la euh, tàgge boo gis am na jàppal ma déw làmb à tout temps à tout moment day am promoteur boo xam ne mooyu la ñuy focaliser wu parce que événementiel yi moo koy yor loolu lu yàgg la Bassirou Baabo ngi xam na ci dara Bassirou Diagne toll woon na foofu fa la Gaston toll jamono day indi day révéler ni muy révéler ay ay mbër noonu lay révéler ay promoteur événementiel parce que dañ koy xam ba pare yàlla fekk si leen ci jàppale leen ci nga ci am ay teraanga di ci am ay turandoo di ci am ay lu baree bari bari jaar na ci làmb moo tax làmb euh, ñi ma gis ñu koy xajamal nañu moytu làmb yàgg na promoteur ak mbër yàgg nañu tuddante doom alaaj ba baaboo ngi di gis naa promoteur jël caabi jox mbër mu dëkk am na euh, kili euh, mbër yoo xam ne tey mën naa leen di diw moo leen wutal kër caabi kër HLM bii bari na ci daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk